ah ana say gaay ana say gaay Cheikh Diop ah Abdou Mbacké ah lakka waaw Abdou Mbacké yeesina bisu tey bi dafay bis bu ama ama am solo histoire politique bu Sénégal rawatina bu Mbacké Touba ndax umpale wu leen ne yàgg na lool département de Mbacké maire yi rek kenn mooy xewle invité ñu ci des wante tey mairie département bi ñoo wootante nawlante ak leader politique yi ci département bi ngir ñu waxtaan doon benn ngir jàppale président de la république ngir jàppale ko dee war na ndax man dinaa indi firnde ko waral ndax booy wax da ngay tàmbalee fi nga xamante ni bay ci sawew tànk fii ci Mbacké kenn umpale wuloon ne am nañ jafe-jafe ndox gas nañ ñaari forage benn bi bënn na ci 332 mètres ñaar bi tàmbali nañ ko fee ci Ndiayène bu ànd ak château d'eau ak 5 kilomètres d'adduction d'eau beneen bi ci des beneen bi ci des ne dama ne beneen bi ci des kenn umpalewul problème assainissement ak ndoxu Tata ni mu jaaxalee Touba ak Mbacké li ñuy wax bu ñu nee Touba Mbacké nag département bépp la concerné ndax commune boo dem ci sa ci département bi ñu bari am nañ kër Touba te seen i njaboot yi ëpp nañu Touba kon bu ñu waxee Touba ak Mbacké wax nañ département bi yëpp te noonu ko président de la République defee ci département bi.

ma ne projet treize milliards cinq cent millions bi nga xamante ni moo war a régler problème mu assainissement Mbacké Touba dégagé nañ ko ba benn société bu ñuy wax MS Construcciones ay portugais ñoo koy defar te bala ñoo màggal dañ ko tàmbale ñu milliards cent millions banque ouest africaine de développement moo ko financé état du Sénégal mu defal Mbacké gi loolu ñu naan Pakasel muy programme banque mondiale ak union européenne commune département de Mbacké bénéficié na 14 milliards 63 millions fukki milliards ak ñett di dugg Touba milliards milliard bi ak juróom nous fukk ak ñett Mbacké ñu ñu deuxième programme pour nous soutenir ci commune ci département président de la république joxe na ndigal pour que ñu jox Mbacké juróomi téeméeri lampe solaire ba identifier ni fiñ ñu koy def ba inshallah rabbi après màggal la commencé travaux yi wante 26 km d'électrification électrification dugal nañ ko fi ci 26 km. Nous jël 24 km yi mu dugg ci Sancaan yi ak Boborel li ci dugg ci ak deuxième phase yi président de la république ak coopération allemande naatangoom boobu di Angela Merkel bi ñu ñëwee ci yoonu wii ci la àndaale ñi nga xamante ni ñoo gàddu projet université bi ñuy def Mbàkke muy un institut d'enseignement professionnel muy université boo xamante ni njàngale mu professionnel lay jàngale ba ku ci jàng ñaari at ñetti at am qualification mën a génn te loolu juróom-ñaari milliards lañu financé te pour le département de Mbacké

président bi joxe na ndigal pour ñu tax benn daara moderne ci 229 millions de francs CFA te ku fa dem da nga gis ne liggéey bi lañ mu pare. ci loolu it ci loolu it bi ñu waxtaanee ci modernisation tali Mbacké boole nañu ak promobile pour ñu am 3 kilomètres ci biir commune Mbacké 3 kilomètres yooyu nag am na retard liggéey. retard ba yi tàmbale woon nañ ko wante léegi ñu àggale ko avant le magal kon lii rek dafa jar ndax ci histoire Mbacké marché Mbacké bii rek PACASEN bi 480 millions la ci programme yi pour injecté ko pour defaraat kon nag nit ki booy ànd ak moom dafa fekk nga war a nga ànd ak ku la mënal dara deel dafa dara ndax Mbacké de 2000 de 2000 ba 2012 mën nañ ne Mbacké SEDAF rek le bénéficié wu ci les Sénégal barki dembu Malik Gaye mi directeur général AGETIC wax na ma ne wax ma ne stade bi di stade Mbacké lancé appel d'offre le 20 avril 2018 société bu wax Ecotra moko gagné day jot avance de démarrer pour commencer ko ndax président né na kon nañ ko commencer agalé ko le plus rapidement possible ndax bëgguma dem Mbacké té pariwul wala touté ci des

pour que ñu tabax benn gendarmerie moderne ba gendarmerie boobu délibéré nañ ci biir conseil municipal ba joxe terrain bi ñu koy defar ci loolu it demandé woon nañ ko camp sapeur-pompier conseil municipal délibéré na ba joxe ñeenti hectare pour ñu def fii camp sapeur-pompier wante fi may tëjee mooy autoroute Ila Touba gis monsieur le maire Serigne Abdou Lahad Ka monsieur le a rek tudd naa sëñ Moustapha Mbacké bu Misra tudd naa Bada Seck tudd naa l'assemblée maire fii ñun ñëpp a yéene jàmm ndax kenn ku ci nekk teraanga ji nga yor li nga ci mën lépp yaa ngi koy def di ci teral doomu aadama kon ñoo bokk bëgg-bëgg ñoo bokk gis-gis

mooy fekk néegu gattax boo xamante ni nit ñaa ngi fay jaar di sàkku gattax ga nga créé ay yoon yoo xamante ni gattax ga mën naa fay sax doon wurus parce que tout simplement bu Ila Touba bi pare képp kuy demati Fuuta Touba ngay jaar wala Mbàkke bu Ila Touba pare képp kuy demati Ndar Mbàkke ngay jaar wala Touba bu Ila Touba pare képp kuy demati Tamba wala nga dem Kédougou wala nga dem Kolda wala nga dem Sédhiou wala Ziguinchor Mbacke ngay jaar mbaa Touba door a dem foofu. ba vers l'intervalle képp kuy demati Bamako fi ngay jaar kuy demati Mauritanie gën a gaawee kon bu fekkee créé na condition yoo xamante ni Sénégal gépp booy di demati jaar fii ba booy demati Kaolack sax jaar jaar jëm si Mbacke ñoo ba Diourbel jaar dem Gossas Kaolack moo gën a yomb kon ñu xam ne li Serigne Touba ñaanoon wa allah kulli xaal kon nag na seen xel dal te ngeen rafet njot te ñun ñëpp ñu ànd doon benn bopp jàppandoo yëkkateendoo pour région de kanam léegi nag fi gis rek mu xëy mbaa mu gont am na fa mu jëm fi jëm nag mooy ci le président de la république Macky Sall ndax ah. ndax ndax dama ko waxoon fii fii laa taxaw ma ne man Sénégal mooy sama parti yàlla Touba la ma booleel ak Mbacké muy département de Mbacké kon képp ku dox ci Mbacké département bi naa dox ci yow képp ku wax ci département ma wax ci yow képp ku daw ci département ma daw ci yow président nag daw ci département réalisation yi def Touba nag sama nattangoo Abdoul Ahad yi nga xamante ni bii jëm si département bi aw ma droit révélé ko même bu ma ko xamee révélé ko wante li ci kanam rawati bët wante aw li ma gis tam jëm ci département maa ngi ñaan ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu bii nga xamante ni mbooleem maire responsable politique yi nga xam c'est des engagés